nataal fanweer ak juróom cër bu nekk ci suñu yaram am na njëriñam bët yi ngir xool nopp yi ngir déglu gémmiñ ngir wax ak lekk cër yooyu yépp dañuy ànd di liggéey su ci benn tawate yaram bi yépp a ko yëg yàlla wax na ni njigam gëm ñoo bokk benn yaram muy jàngu bi Jésus sang bi mooy bopp yaram wi chrétien bu ne am na lu la yàlla sant moo xam woy la moo xam waaraate moo xam jàngale mbaa bey wala togg kenn ku nekk dafa war a liggéey ngir dooleel yaram wi ñi gëm ñépp dañoo war a bëggante ànd liggéey sudul dul loolu yaram wi day na sax